asalaamaaleykum si internet Dakar Midi gannaaw ba leen ñëw di geral bu baax tey nag suñu dalal bi nga xam ne mooy ndaanaan doomu xaar yàlla doomu Liberté waaye doomu jëppal ñu gën ko xam si Cheikh balaa avant dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu fas waxtaan ak moom lu bëri ndax artiste ñu war a waxtaan fi mu jaar ak fi mu egg si fii ak li nga xam ne mooy ay programme gannaaw boobu Cheikh maa ngi lay nuyu. Fall ñu ngi lay fay. di la wormaal di nuyu ñëpp. ñuy seetaan. di ñaanal ñëpp ci weeru safar gi yàlla ñu la leeralal lépp waaw ñu koy seetaan ak ñi toog di ko teewlu yëpp ñi ko doon xaar yëpp xale baa ngi nii doomu xaar yàlla Grand Yoff bi doomu jëppal dergale Castor Liberté 6 waaw Cheikha ngi nii waaw ah, Cheikha maa ngi wax ak yow nga jéem a ñooti jéem ki tey suñu mënoo wax tey ah, Cheikha tey ah, fa jaar ak moom ak fi mu ak waaw Cheikha ah, fi mu jaar ba yegg si fii bari na waaw ah, def na fi ay soirée sénégalaise yoo xam ne mi ngi ko doon tëgg chaque jeudi faro waaw programme ngénte yeeg ene yeeg waaw moom xale yi xale yi seetlu naa seetlu naa yéen tëggkat yi yéen nga xam ne yéen taasukat yi yéen jël li nga xam ne mooy ene time bi téye ko en mai waaw ene time bi di ci def lu neex xam nga xale yi dañoo bëgg lu neex waaw bu ko yàlla defee ci yow nga mën ko ñu gis ko si yow dañ lay wëri si waaw. tey bëggoon naa xam tey Cheikh tey fa la jaar bay di tëgg papam tëggkat la woon wala seen waa famille mhm. xam nga picc moom bu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxal ay mbokkam yee dañoo judd ci kër ngéwél waaw lu ko dalee ba ci samay maam waaw ah, baay donn ko ñu ñëw donn ko ci baay sam papa musicien la boo xam ne euh, orchestre national la ne Blaise Senghor la jaar mujjee orchestre national doon fa percussionniste waaw te yàgg na fa lool doomu ndaanaan moom nga jàppoon ni sa pap lu mu doon eh, li mu nekk da nga xam ne orchestre national nga jàppoon lu mu nekk foofu noonu moo tax nga ne man dama war a tëgg. non ñun dañoo juddu kër géwél doon doomu géwél yaay di géwél baay di géwél waaw ñun buñ tegul dañuy tooñ buñ tegul waaye ñu waaw leneen luñ def dañoo tooñ. mais dama jàpp ne est-ce que lu sa pap doon eh, orchestre national ba léegi dama si ñëwaat nga taxaw ne da nga war a tëgg te yow Cheikh yow kenn xamula ki mosu laa gis nga toj fen mais mosuma dégg bañ ne kii seex mi kat ah xaar yàlla dëkk mooy toj fi ndax suñ gis nañ ba yeneen gongomaan yi wala yeneen eh, nga xam ne ñooy tëgg ñëpp dañoo siiw mais kenn xamula xam nga ndeysaan aar dafa doy waar boo ci duggee ku nekk ak li ngay opté ñun mais ñun carrière la ñuy opté pas buzz yooyu noonu ñun ay baavaal la surtout li eh, nga xam ne mooy tëggkat foo tourné dañuy woo gër karkat di woo nit ma gis dem na ay time yu bari dem naa ay ni nga xam ne may xew yu bëri ni ma gisee tëggkat yi siiwee suma la fa dégg mosuma fa dégg ne waa kër diw lañ xam nga tey jii soo nee ni nga xalaat waa kër waa Mbaye Guèye Faye soo ne ala fay gis nga ko nu mu tëgg nga tudd keneen ak keneen ak keneen mooy loolu mais yow kenn xamu la fi nga dëkk nii sax su doon laaj fii Cheikh damay réer. ndeysaan ñun ñun da ngay wër adduna bi maanaam Dakaaru Njaay wërngal këpp foo taxaw ne Cheikha ndaanaan yi mag yi sax dañ koy joobee. ndaanaan moom duñ la doo duñ la joobee ndax ku si mel ni Zabata xam nga Zabata. waaw ku si ku si mel ni eh, kii Alaaji Fay day tëgg. moom Lamine Ndiaye Rose ñu koy tëggal ñun ñëpp xam naa leen mais yow sa jëmmi bopp man dama la gisul si game bi. game boobu maanaam dama naan eh, ku bokk si gétt gi foog nga naan ci meew gi mais ñoom ñi ci gétt gi. buñ toogoon war a naan ci meew gi maa leen di njëkk a naan ñoom xam nañ loolu. waxtaan loolu. parce que ñoom Baye Fall bi la ñuy topp. topp Baye Fall bi bul bul ñëw di affaire Baye Fall da ngay bu fekkee fekk da nga leen a ragal wala dafay kii. ragal du jam guy. déedéet bàcc sëñ Fallou. bu ma fekkee da nga ragal nga ne kat gem da nga ciy gis nga nit. soo nekkee si benn projet wala nekk si li nga xam ne ma comme tey jii su ma taxoon tey jii ma ne yéen animateurs yi maa leen mën ak ñeneen ak ñeneen mais da ngay taxaw dëggal sa bopp mais xam naa ne carrément Zapata fu mu jaar wala ki nga xam ne mooy alaaji fa fu mu jaar yow doo fa jaar. waaw ñoom Mass Mbaye ak ñooñu kii boobu ma la. xam nga ndeysaan àdduna ku nekk bàyyi dem ku nekk ak sa jaar-jaar. ku nekk ak sa yoon. ñun yàlla moo ñu dimbali ba faaw ñu artiste ku dul suñ ku dul papa. man mais papa kenn xamu ko. Mass Mbaye. sa papa maa ngi doog dégg tur boobu. li tax li tax li tax mooy mooy bëgg di ko tudd sam papa mooy fier di ko tudd boo demee fi ndakaaru ñëpp di daje di bége boo fo boo duggee biir Sorano ay affiche ay affiche am ngay gis nii loolu dama ciy fier doomu ndaanaan laa ñaari yoon. dina doomu ndaanaan ndaa ndaanaan moo xam ne am déet noo ndaanaan moo xam ne sa papa kenn xamu ko senegal ah, man tey jii Sénégal tey jii soo ne 5-5 ñëpp xam nañ 5 ah dañu yaay kii ma yaay Kumarose papaam ñëpp xam nañ ko day tëgg mais sa papa kenn xamu ko kenn wax ma ban album la fi tëgg waaw ban ban escorte la la si bokk. sama papa album yu mu tëgg bari na. li mu mas benn. tëggal na ko. Hmm? Douta Seck. maison de la culture. sound bu ñu def sama papa ko tëgg. ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni waaw du lépp la ñuy mën a wax. mais dañ lay cax rek sam papa mooy jëringóone maalawe sàmba ku li ma ca seengi ndaan ma faali ko ma ndaama tëx ba balaa dégg fukki balak ñaar ne tooyi waaw kooku ndaanaan la doomu ndaanaan la moo tax foog mu jur doomu ndaanaan foog mu jur doomu ndaanaan ñu ñëw tuuti euh, li nga xam ne mooy sa carrière tey ji euh, gis nañ euh, Cheikha tey mu rancé li nga xam mooy defi tey gis nañ yaa ngi tëgg ay soirée gars yi ngi ñëw yaa ngi tëgg li nga xam ne waaye ay any time gars ngi ñëw si xaar tey lan mooy sa projet. samay projet projet yi bëri na saa nii dañoon def nañ single mu naaj xale yi bëgg ko lool. single bi man ko dégg guma ko. ah single bi mi ngi toj down bi. Ah, ko. xam nga xam dafa loo xam ne du luy xaare luy dem la li xale yi naan day daw rek. léegi may ñu déglu ko tuuti may ñu déglu ko. sa lépp leer ba tas fi ku fi soxor dinañ la waal ree ba tas soo ko weddee taalal sa télé gis ko revue de presse ba tas fi ku fi soxor dinañ la waal ree ba tas damay xool sa xol ni dagg moo dëggee ree ba tas ba tas fi ku fi soxor dinañ la waal ree ba tas yàlla mi la sàkk sàkk moom di la may di ma may li may may loo si mën ku munul yàq foog nga wax waaw gannaaw seen internet ci Dakar mi di gannaaw ba ñu déggoo li nga xam mooy son wu Cheikh doomu xar yàlla bi doomu Liberté 6 bi doomu jëppal bi mais son bi maa ngi koy mel ni man dafa xaw a tee sama xel Cheikh ah, son bi la wala nu mu fa demee noonu. lan la comme lu ciy tee sa xel. Ah? lan bi man son man son bi man jaaxal ma ah ni ko tëggee nii bit beeg yooyu noonu yaakaar naa dafa des. li des dañ koy jëli desit. wala yow bës nga bëgg moo tax nga génne génne sa single bi mooy lool bës yow single bi di toj dëkk bi nga naan ma. wuy ma dañuy waxtaan maa yow zéro ko ne ma maa yow dañuy waxtaan. yaa ngi dégg son bi bu dul man rek amul kenn ku ko dégluwaat te son bi deful bës. gësul gësul bu baax fi mu ne boo ko gësoo. Mm. waaw di nga xam ne am na yoo xam ne liggéey rek ko koy maye sans caaxaan. mais bu lu sa koñ sax est-ce que sa waa koñ sax nañ déglu son bi ndax yow sa waa koñ dèjà yow sax xamul le son bii nii nga ma tegal ni ku leeralal sa waa koñ duñ ko déglu après nga bëgg a fël nga ne non da nga bëgg bokk si game bi. yow da nga naan yow yaa ma xamul yow mais man ndakaaru ndakaaru néew na koo kenn moom ndakaaru eh. ah muy mm. ñoo ko moom. mais yow kenn li ma la si yow. waaw ñooñu ñooñu samay mag lañ ci aar samay mag lañ ci aar. waaw loolu nag xam nga xam nga artiste moom kenn su commencé ragal ni dañ ay kooku sama mag la. boo bëggee bu ma la bu ma dëgg rek ñooñu nga may limal fii nii ñëpp hmm? barki sëñ Fallou dañ may xaar. yaa neex nga ne noonu dañ lay xaar ku si mel Alaaji Fay si mel lu mu tëggul baaxut. Alaaji Fay lu mu tëggul baaxut ah Sabata lu mu tëggul baaxut nga ne ma kii. Seexa moo téye gem bi nii yoonu ndaw bi xanaa déggoo yoonu ndaw. non ndaw boo xam ne yow sa koñ sax fa après bu ko téyee gem bi day métti. station xaar yàlla. pompis yi. sax laa la wax koo ci newoon Seexa da lay indi ba sama kër. Seexa yow yaa ko xamul mais yi moom la ñuy topp moom da leen a <laughs> non yow yow seexaa yow léeg-léeg station lii station la est-ce que yaa ngi dégg te man seexaat moom mosuma topp fenn ñoo seexaa tëgg li wala seexaa wane lii wala seexaa lépp bu dul sa bi ma génne. kii doomu Grand Yoff la la boole xaar yàlla hmm? derkale Cité Marine jëppal Liberté 6 ah Fass Colobane Gueule Tapée moo Fass bu fa dugg Fass waa cinq cinq ñoo fa nekk. man samay soirée waa Fass ak Gueule Tapée ak Medina ñoo koy feesal foo ne. Ah, man lu ma gis ndax Alaaji Fay ku dee Alaaji Fay moom chaque mercredi lay dóor fi nga xam mooy la jour mhm. keneen ak keneen dóor Kora Fay tamit loolu mais yow Cheikh soo doon soo ay Medina Fass Gueule Tapée yow la ñuy topp daf may jaaxal. ñu ngi may limal fii ñu ngi may limal ñoo man la ñuy topp ndax man lañ sopp lépp xale koy def xale baa ngi nii. pourtant ñoom tamit ay xale lañ ay bàyyi demba mu ndaw nga xam ne tey jii lu mu tëggut baaxul wala lu mu tamawul baaxul. xam nga day daan mooy li ma la wax rek ñooñu suñuy mag lañ ñooñu jiitu ci aar ñooñu jamonoy jamonoy maamee la te suñuy jamono suñuy jamonoy tey jii nii mun a yem ak suñuy jamonoy maam ya waaw ñoom dañuy xaar rek xale bi jëlee li mu bi jël lu moom benn xale fi jël lu moom toll ak yow génération mo moo Lamine nga xam ne tey lu mu tëggul baaxut yow ak nga jóge fii nga ne gem bi di wax ay HLM ak yooyu noonu kooku nee naa gem moom moo ko téye xale yi seexaa rek la ñuy topp mais gannaaw ba léegi bëggoon la nga mayal ma comme que da nga génn single nga même si sa single bi tuuti bisimilaay fenk leer menk leer fenk nañ ci jant yàlla yi ñaan yàlla mootale fajar ñu jar ma ne yëkkati loxo ca kaw yëkkati loxo ca kaw ne ree tas fii ku fi soxor dinañ la wayal ree tas ndax yàlla taal sa fajar teel daa bëgg sa lépp leer boo ko weddee taalal sa télé gis ko revue de presse nga may xool sa xol di dakk ma dëkke ree ba tas ndax yàlla mi la sàkk sàkk ma moo lay may di ma may li may may loo ci mën ku munul yàq nag foog mu wax lu ñaaw ma jëf di jëf te bañ a tontu ndax noonu du mës ne waaw aw ma temps wu xaar sama yaay daf maa ñaanal man. man daal seex seex man son man li nga fi rib nii yëpp mooy loolu noonu après nga ne bu nga bëgg a téye gémm tamit si lii nii nga ma waxal ni xanaa fekk man mii sax man naa mën naa ko. man xale yi man lañ bëgg benn limay def dama ko maîtriser dama ko mën hmm? te dama koy def muy neex xale yi bëggee. loolu mooy l'essentiel. loolu mooy le léegi dañuy ñëw li nga xam ne mooy sa programme yow Cheikh li nga xam ne yaa ngi tëgg car macha allah waa waa Derkale waa xaar yàlla ñoo ngi ñëw di la topp secret Cheikh mooy lan. secret bi waaw secret bi job la rek bañ a tricher waaw secret bi job kese la. dégg naa en temps bi la yaa koy toj ci li ma dégg man nag gisuma ko am naa droit ñi ñuy seetaan ma yenn temps yi moom mu ngi koy toj man gisaguma ko. waaw loolu la yàlla dogal xam nga lu yàlla dogal dama koy def muy neex xale yi di ko bégee moo tax fu ma ne dañ may wër si. Seexa en temps bu mu séewul baaxul. naka gis naa la en temps boo séewul baaxul. barki yonent bi ah doomu gaynde Njaay lay sant te ci digg àll bi lay ne. wax xam ma wax balaa neex waxkat yi wax ba dajal mais bu leen fa seexaa fekkee coow li lépp leer ndax waxa wax waxaat moom du bari wax bëgg li ngay wax mu leer la. bu li wax mu leer la après dañuy commencé waxtaan li nga xam mooy carrière am gannaaw ba nga tëggee li nga xam mooy boit yi nga nekk nga xam ñoo dëkk ñoo nekk fi nga xam mooy biir Ndakaaru tey seexaa ana lan mooy projet ak seexaa si fan la jóge ak fan la nar a projet bi mooy single bi ñu ngi ci projet single yi comprendre nga ba pare ndeysaan sunu sunu bët yi teg nañ ko ci fiñ ko teg moo sori ñun bëgg nañ ay waaw ay single single single pourquoi pas album gaa la ñu xaar ci côté bu ne ndax ñu ngi liggéey ay ndaw lañ yoo xam ne dañuy doog a door. Hmm? di ñaan yàlla sàmm nu moom mooy artiste bu mag bi moom suñu borom waaw moom bu ñu aaree rek moom bu ñu aaralee boppam dañuy aar te kenn duñu ko tee waaw ay ndaw lañ yu sax si liggéey waaw day metti mais noo wari yoon bi moo gudd mais tànk yi dëggu na eh. tey tànk yu dëggu na bëggoon nañoo xam li nga xam mooy Cheikh ndax am na ñi nga xam ne ñoo ko war a jàppale mais tey gannaaw gis nañ sa projet yi nga yëkkati ñu bëggoon xam Cheikh ah ñan ñoo nekk ci ginnaaw wala am na ñu la jàppale ndax li nga xam ne mooy génne album wala génne li nga xam ne mooy single yombul. waaw Cheikh Cheikh dafa am staff bu nekk ci ginnaawam di ko dooleel di ko jàppale bu baax. Mhm. ah dama gis li nga xam mooy bit bi dafa garaaw li nga xam ne mooy tëgg mi ah, waay bi. ndax ñu bëri di nga gis ah, artistes yu bëri da nga gis eh, comme si mel na ah, Samba Diarra Mbaye suy way daa am nekk si ginnaaw dika ko aawoo dafa mel ni yooyu lépp yoo yaajal si initiative bopp jeu loolu xam nga ndeysaan ñun mooy li ma la wax rek ñun ay ndaw lañ te olof Njaay dafa ne sa xel bii bu noppee naa ci rek noppi na laa jëriñ ndax xel mooy koom mooy sa doole yee ñun sunu xel yi la ñuy utiliser dañoo ñëw gis gars yi jaar nii ñoom ñëpp benn yoon lañ jaar dajaloo fa xam nga mu doon yoon boo xam ne dafa euh, comment dire dafa saturé ñun ñu ñëw am vision xool leneen parce que dañuy xool fu sori suñu bët yi pour am lu bari xam nga mooy li nga wax rek ku si nekk def nga sound invité waykat artiste mu ñëw wayal la maanaam nga soxla dooleem nga soxla moom comprendre nga moo tax sànq ceex naa la si biir wax naan la ñi ku bok si gétt gi foog nga naan si meew bi mais buñ demoon ba war a séddale meew mi man seexaa maa leen di njëkk a naan. mais ñoom dañuy woy teg tegu si temps mais man su ma déggee li nga xam mooy si single bi nga see tagg sa bopp. te saabu du fóot boppam da ngay bàyyi la mais yow da nga see tagg sa bopp pourquoi tamit nga tagg si sa bop xam nga nit nit balaa kenn di la gëm da ngay gëm sa bopp ba pare d'abord dama gëm bop a gëm ni maanaam yàlla yàlla yàlla moom mooy maye quoi comprendre nga yàlla moom waaw moo moo moo ñu may xel bu ñuy xalaatee parce que nooy mu yegg sax si yàlla la dépendre waaw ñun li li ñu way si sound bi suñu xel moo ko may mooy maanaam dañuy xalaat di xalaat fu sori waa ngir dem fu sori xam nga boo naan bip bip tamit ah, li nga xam ne mooy ah, dafa jafe toog studio di ko enregistré yow kase te gis naa ne yaa tëggal sa bopp yaa awul sa bopp nga foog ne ba nga ko doon tëgg est nekkoon jafe-jafe si yow non man balaa man mooy defaral sam bopp am na ay artistes yu bari ay sound yu bari mi ngi daw si temps bi man maa ko liggéey doon wu bu ndaw yàlla moo def si yàlla moo def si jëmm ju tuuti ji nii xel boobu dafa di que du lépp la ñuy wax te man damay nit boo xamante ni du ah, li ma sekk ak yow loolu man ak yow la ak yàlla ndax buñ koy sekk yàllaa nu boole ñu sekk ko mu naes comme day yem sama diggante ak yow mais du ñu bàyyi faale yooyu noonu di def ba pare di wax mais bëri na ay sound yi daw si town bi fii di neex nit di ko bégee Baye Fall moo ko liggéey ñëw toog. Baye Fall moo te gis na li nga xam ne mooy ah, li nga mooy singalam da see tagg boppam. dama bëgg nga ñëwaat tuuti si li nga nan nan ko composé nan nga arrangé li nga xam ne mooy musique bi ak nga arrangé li nga xam ne mooy parole bi ndax dañoo gis ah, artistes yu bëri wala aawkat ah, yu bëri wala taasukat yu bëri dañuy woy li nga xam ne mooy seen gox. woy li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale dama gis ne yow kese yaa jël sa initiative bopp waaye sa bopp tagg sa bopp même sa waa koñ sax dugaloo leen ko sa pourquoi. waaw xam nga loo gis ci àdduna am na lu tax loo gis rek am na lu tax dañoo dëkk ci gox doon booy gëm teel a gëm suñu bopp nag xanaa xam nga boo gëmee sa bopp ba da ngay bëri da ngay bëri doo bëri ñu la sopp waaw man ma xam loolu ne yàlla kese kese kese kese bu la bëggee hmm? keneen ku la bëggul waroo ko sax bàyyi xel. ñun fii lañ dëkk te fii nii dañ fa daj waa dañ fa dund lu metti comprendre nga du ñëpp la mën a nangul ndax Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa moo gën ñëpp moom du ñëpp ko du nangul te ñépp nangu nañ ni moom moo gën ñëpp waaw noonu la demee rek ñun fii bu bañee dangay génn ñun fii bu muy metti xëccoo bi di bari dañoo génn dugal ay kër masaar ay kër masaar ngay dugg ay Zac mbaaw ay boon hmm? waaw foofu xam na ràññee nañ jëmm ji ràññee nañ si yàlla mi ma tiim xam na ni sound bi man maa def lépp maa ko teg maa ko way maa ko man borom studio bi day toog naan ma seex yow boo sooboon ci machine nit du la defal dara lépp yaa koy defal sa bopp foofu ñu xam ne yàlla mënu laa may lépp Etienne Etienne ñu koy remercier bu baax a baax a baax ndax da cee jàpp bu baax a baax waaw studio mi ngi nekk baax Baobab waaw muy nit ku ñax ki ñaan ku baax ku oyof waaw daf ñoo jàppale bu baax a baax a baax heure bu ne lañ koy fëgg heure bu ne te saa buñ ko fëggee mu ubil ñu ay buntam yaa ñun luñ def nii. Ah, ragal du ko def ndax mënuñu juddoo xaar yàlla war a xaar kenn kese muy sunu boram di am temps di xaar keneen. ma ngeen dalee xaar yàlla ba yàlla ñëwul après nga bëgg di xaaral keneen. yàlla yàlla chaque chaque chaque jour mu ñëw du yónnee de day ñëwal boppam. waaw Cheikh ah, ku dégg xam nga li nga xam mooy ah, studio dafa métti ak li nga xam mooy son ak arrangement. dañ bëggoon nga euh, li wax ni li nga xam ne mooy noo noo li nga xam ne moo génnee li nga xam mooy son waaw son bi liñ togg la liñ togg la topp ko topp nañ ko un an yàlla ci dogalam yi dem nañ ci ci ay studio yu bari mais moom muy dogal ant euh, antuwul ci studio yi nga xam ne fa lañ dem moom sunu borom moo ñu booleeg Paco muy nit ku baax koo xam ne daf ñoo jàppale bu baax a baax a baax. bi d'abord dama cee wax sama bopp dama cee tàggu yàlla wax ci waaye ci sama bopp ci ñi nga xamante nii lu mënul ñàkk la parce que mënuñu way ñëpp mais nga xam ne mënul ñàkk mooy lu mënul ñàkk fa mu am sunu pa sam papa laa ci woy Siré Dia actuellement moo nekk entraîneur jaraaf waaw ñu koy ñaanal bu baax a baax mu am ci ay ndami ndami ndam yu bari. waaw moog sa sa waa koñ <laughs> dañ leen di dër peer sa ginnaaw incha allah <laughs> yàlla def jàmm. waay ci sunu sama jigéen sama xarit muy Bintu yaa moom laa dëkkal. waa ji saawalo sama mag la sama xarit waaw ku ma bëggal boppam waa ci jabaram mbayang hmm, way ci masamba serifa waaw ñooñu ñooñu samay samay ñooñu samay mag bopp lan waaw ñooñu ñooñu bu ñooñu dañ may dooleel ta waaw dañ may dooleel te boolewuñu daraa ki wax maa ngi kontaan ci ñoom bu baax a baax a baax son nag metti na metti na ci koo xamante ni mooy demak ay moyens boppam ak ki nga xamante ni moom la ko yàlla booleel mu di ko jàppale muy Paco dañ daan def programme ñiy teg comme buñ demee programme teg ba pare buñ séddee gaay waaw dañuy jël sunu xaalis moom lañuy jël yóbbu studio saa buñ tëggee jël xaalis yóbbu studio te sound bi nag def nañ ko nice mais dañoo bëgg dañ ko bëgg a clip waaw te ku ne xam na ni clip lay laaj te tey jii ku sañoon sa doomu réew moo mooy mooy gën amuñu leneen lu dul xaar yàlla Grand Yoff am nañ fi ay autorité ki fi nekk nii actuellement maire sama mbokk la sama mun naa ne sama maam la waaw ñu ngi koy woo muy Pape mu maire Grand Yoff ñu ngi koy woo ku ci mel ni laay mairie ñu ngi koy woo bu baax ku ci mel ni sunu papa Abdou job ñu ngi koy woo ah sunu papa Sirédia Massamba Serifa ah Saawaalo ak sunu papa Cheikh Mor Mamar mbay waaw ah, ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax ku ci waaw ku ci sentir ni war na ci mën a teg loxo rek ñu ngi koy woo waaw te xam ni li ñuy teg loxo seen doomu réew la te seen doomu réew moom benn combat xeex mooy lan drapeau bi drapeau moom fu mu dëkk bëgg na fépp fu mu dem yëkkati fa drapeau dëkkam waaw ñoo bëgg suñu drapeau buñ ko porté dëkk buñ dem samp fa drapeau bi waaw ñu xam ni waaw doomu dëkk bii nii waaw dëkk bi am nañ dara quoi waaw pour nga doon champion nag foog nga teg say pion daan fi champion foo tourné ñu naan la da nga champion capable nañ loolu capable nañ loolu yóbbu suñu dëkk fu sori parce que moom lañ moom moo nekk si ñun moom la moo nekk suñu mbébét te yàlla na ko yàlla mottali yaa yàlla na ko yàlla mottali dégg ngeen kàddu yu mu yëkkati te nee dafa war a génne li nga xam ne mooy clip te clip tamit yombut moom lu mu ko waxee rek mooy woo bépp koo xam ne autorité nga dëkk biir xaar yàlla wala ga wala Grand Yoff nga ñëw jàppale ko ndax nit su génnee moom teewul boppam dafa teewal waa goxam te ku dégg Cheikh mi kat xam ne Cheikh ku mun a woy la ku mun a teg li nga xam mooy mooy si temps mais Cheikh dañu bëggoon a wax comme am nga ay projet yi nga war a dëgmal tey Cheikh ki nga xam ne jamono ji fu mu toll temps yi mi bëri nañ daana weer bëri nañ tey ku bëggoon woo Cheikh tey wala ku ko soxla woon tey fan lay jaar. waaw Cheikh loolu dafa am koo xamante ni moom moo koy gérer yaa am na ñoo xam ne sama numéro lañ may woo mais ñi ma ciy woo sama numéro yëpp dama leen di jox sama numéro ménagère parce que loo gis rek dafa am fu mu war a jaar ñun ay ndaw lañ yoo xam ne dañoo dégg ndigal te nit ki moom boo xasee ba waaw maye sa bopp rocci làmmiñ waru la mais tey ku la soxloon tey fan lay jaar ban numéro lay composé ne kat bi mooy numéro Cheikh. man bu ma woowee dama koy passé ma ménagère direct. Mm-hmm. waaw ni sama numéro lay jël. Ah, sa numéro mooy la ñaata. sama numéro 77. 698. 98 41. waxaat ko 77. Mm-hmm. numéro xale baa ngi noonu. 77. 698 98 41. waxaat 698 98 41. loo soxla rek. ku ma soxla tànn beer yeeg. en time yeeg. sabaru ngoon yeeg. ngénte yeeg jàkkaarloo yeeg. waaw yëpp bu ma woowee ci numéro boobu dañuy déggoo ci kàttanu yàlla. waaw gis ngeen ko li nga xam ne mooy Cheikh moom la joxe numéro maanaam ki ko soxla li nga xam ne mooy en di sabar wala tànn beer. xale bii man ak xale Grand Yoff xale bi nag man ak xale xaar yàlla xale bi nag man ak xale jëppal xale bi nag man ak xale réew mi nee na moom si game bi la bëgg a bokk mais gannaaw ba ñu waxtaanee tuuti rek dañ koy bàyyi rek mu tàggatoo ak waxtaan li nga xam ne noonu la game bi di demee Cheikh te gis nañ game bi tey mu joxe si tuuti sa xalaat ndax temps bi ñu joxoon si temps jeex na. Hmm. waaw game moom ni mu ni mu ni mu demee ñëpp a ko gisandoo parce que. ku nekk sa bët nga yor di xool te nit ki li ngay gis rek nga mën a wax mais man man xalaat bi mu ci am mooy ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi maanaam buñ ko rafetalee rek day rafet waaw borom xool bu naas moom lu rafet rek day gis hmm. dañ ko teg si code rek teg lépp si temps parce que lépp ci temps lay daaw buñ ko tegee si temps rek waaw duñ am benn gàllankoor dañ ko rafetal rek. parce que maanaam ñun li ñuy def nii ci ñi woon démb lañ ko gisee bu ñuy delloo suñu xel si ñoom rek duñ réer parce que ñoom nekk nañ fi ba jóge fi tey jii ñu toll si ñoom musul musul ñaaw ci ñoom comme ñun warul ñaaw waaw dañoo war a sàmm loolu ndax loolu mooy sunu doole ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi dañuy doolalante rek nga ku si nekk mën a comprendre sa mborom di ànd nit ki tamit si waaw sa jikko bul xool moom jikkoom booy xool jikkooy nit ki rek doo leen mën a nekk doo leen jëflante dara te ñun ñu ni neen la dërëm gi warul génn gaal gi. parce que ah, dërëm bi ah, dërëm bi warul génn gaal gi lu mu bëggoon nga tàggatoo rek wax ah li nga xam ne moo lañ fi andi. waaw li ñuy tàggatoo mooy dañuy remercier yéen ñi nga xam ne yéen lañ fi fekk ngeen dalal ñu ci anam yu nice yu ñu rafetlu di ñaan yàlla. yokkul liggéey bi bu baax a baax a baax ba pare xam nga di remercier waa xaar yàlla bi nga xam ne fa lañ jógee di remercier ñëpp ku lim da ngay juum wala sax doo matal mais dañ leen remercier bu baax a baax a baax a baax waaw di remercier bu baax bu baax a baax a baax waaw képp kuy béggee Cheikh rek ñu ngi lay waaw remercier bu baax a baax parce que bëgg rek dafa metti ndax lu la ngay dégg mais xol bu xase bëgg moom leneen loo ko wax du ko gis ndax mbëggeel ga muy gis ci moom. ndax mbëggeel ba muy gis ci moom ah, ah, avant tout ah, di la remercier tamit di remercier képp koo xam ne jàppoon nga si nga xam ne mooy liggéey bi di remercier ki nga xam ne mooy Paco di remercier wàlla Cheikh nee naa xale bi mooy xale euh, Grand Yoff bi xale bi may xale xaar yàlla nee naa xale bi nag mooy xale jëppal bi xale bi nga xam ne moo rëmbee réew mi maa ngi doon kaf ak moom di retaan ak moom li nga xam mooy émission bi mais xam naa ne lu mu tëggut baaxut sama xarit la sama lépp mais avant tout di remercier képp koo xam ne yaa ngi seetaan rek à travers Dakar Midi di leen euh, di leen jaajëfalaat bu baax a baax di jaajëfal sama cameraman bi sama DG Ousse nee naa borom Dakar Midi di jaajëfalaat ñëpp nag di leen ne euh, màggal Tuubaa mi nag bu leen dara rëcc di ziaraat sama sëriñ euh, maam Thierno Mbacke imam di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi loor ànd ak wér. dina ñaanal tamit général bi muy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ndax yaakaaruñu ku dul moom te tamit utuñu lu dul moom di ziar tamit sama xarit sañ Abdou Khoudous nee naa ne mag moom benn lañ fu mu gisee day kaf day foo day ree ndax loolu lañ soxla yéen yi nga xam ne suñu wasila di la jox dig daje ba beneen yoon incha allah